ay ca ba tey ànd ak yéen ci li nga xam ne moo di waxtu wi la tembe 14h dans les dots, nag ba toftalu juróom fukki simili ay ca ci pàttali baa yéen a ngay ànd yéen a ngay maase yéen a ngay xeex loolee nga xam ne mbas la mu coronavirus. muy feebar bu doy waar moom coronavirus ne bàyyiwul benn ëttu liggéeyukaay bu nga xam ne soppiwul seenu doxalin Sud FM Radio al Mami Ndour di fa DJ moom sax émission am daanaka sensibilisation le. yéen a ngay topp wax jooju nga xam ne waa Kër Docteur moom la wax. ba loxo yaa ngay set bàyyi na ngay raxasu ak ndox ak saabu ah mbokk yi dama ne nag l'heure grave ba tax na saa ne nañuy waxtaan nañuy saafonte di sensibiliser askan bi wax leen na feebar bi mbas bi mi ngi ci réew mi waaye itam lu grave lu mën a faagaagal doomu aadama la dama ne est-ce que yéen a ngi raxas ndox loxo ki nga xamné moy roi de la bande FM ci diwaanu djourbel di wax né war teef la ci mom mu waxtaan ak askan wi ci feebar bi nga xamné moy Covid 19. en tant qu'animateur yaakaar animateur rôle principal bokk na ci au-delà de divertir da nga wara informer waye tam da nga wara éduquer jamono ji nak dañu nek ci li nga xamné ne l'heure est très grave mu di coronavirus te nag sun rôle principal.

di wax ci coronavirus di wax ci yan précaution nga mën a jël ah ba du la dal comme li may wax ni léegi kenn ku ci nekk war nga mën a am sa gel hydroalcoolique war a mën a wax nit ñi nañu raxasu ak loxo seen loxo yi ak ndox ak saabu saa suñu duggee ci toilette saa suñu génnee ci toilette saa suñu doxee ba ñëw te wàññi nuyoo bi wàññi dox ba li naan kenn ku ci nekk daal na na doon sa médecin bopp te itam ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi dàqanteeg waaye takk der di làqante làqatu di daw di yóbbu nit ñi ay dakaar wala jële Dakar nañu di leen indi fii Touba wala Mbacke wala ci yeneen dëkk nanu ko bàyyi te ku leen gis nag na xam ne ñun ñëpp ñoo bokk yam ay Sénégal lañu te nag ay du ci bopp borom ku leen gis nag leen boole ndax nag wax dëgg yàlla waxtu wi daal doy na waar doy na waar ba si nag kenn ku ci nekk daal ci ñun war ngaa jël matukaay ya ca war ba ñu àndandoo daal di rek euh, dàq coronavirus bi nga xam ne mi ngi ci réew mi te nag lii may gis su dakkul te yàlla na dakk sax fa mu jëm moom du neex kenn. coronavirus di feebar bu doy waar na ma lëmbee àdduna senegal jug taxaw ne du nangu mukk mu koy galfan jot na nag ñu ànd daal di xeex daal daan loola nga xam ne balaa la mu di coronavirus coronavirus us ca biti ca biti ca biti waay lii laa wax.